mandargalee abayma ça suffit largement à décrire le phénomène et surtout wane ni lu salté la lu ñaaw la ñun nak dañu gëm lén barki demb defe à Dagana j'ai rendu hommage à un homme politique non pas parce que je suis d'accord avec mom wala ñom ñu yoré réew ñi yoré won mi mais parce que au moins wane na fidélité and ak nit ki bi muy ñu ànd daan gagné ànd gouverner and daanu mu toogaat bi muy metti ba tay ji mais c'est ça la politique la politique da ngay am conviction Nous nek ci benn parti ne parti bi la gëm tant que maa ngi ci biir neexna ñu ngi ensemble nous na ñu ngi ensemble. et au-delà de tout mais il faut politique gëm-gëm lal ko tay on a vu des coalitions quand tu te donc, soit on da dans la coalition bi lan moy base bi lan moy gëm parce que dañu qui kii communistes, ki euh fascistes